lillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala mbokki jullit yi noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu sotti ci moom ak ay saxaabaam ak képp ku ko gëm topp sunnaam ay xéewal yu yemul fenn gannaaw loolu noo ngi dénk sunu bopp di leen dénk ragal sunu borom tabaraka wa taala mën a toll ragal yàlla mooy dénkaane bi borom bi tabaraka wa dénk ñu jëkk ña ak ñu mujj ñi moo tax mu ne dénkoon naa ñi ma wàcce woon ci ñoom téere ya ca la leen jiitu ragal yàlla wëlbatiku dénkaat leen yéen itam xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi ragal yàlla kon kooku mooy dénkaane borom bi tabaraka wa taala gannaaw loolu jotoon nañoo tudd ñetti chart ci chart yi nga xam ne laa ilaha illa allah koo laaj mu di kàddu googu nit ki di dugge ci lislaam ñu waxoon ne kàddu googu lu bari ay ngëneel la ngëneel la ci gën a rëy mooy tàbbal nit ki àjjana te it noonu ngëneel li baree ñàkk ko taxawe noonu la lor ja baree ndax ñàkk koo taxawe la muy lor nit ki mooy tàbbal ko sawara wala yaasu billah ñu tuddoon ci ñetti charte tey ñu fas yéene waxtaane charte ñeenteel bi sartu ñeenteel bi nga xam ne nag laa ilaha illallah laaj na ko ci ki ko wax mu ànd ak moom ndax laa ilaha illallah mën a am njariñ moo di as-sidq dëggu dëggu dëggu nag buñ ko waxee jottaliku naw làmmiñ waaye jottaliku na it ay cër kon mooy li nga xam ne bu ko nit ki defee wala mu melowoo ko mucc na ci wax lu amut waaye mucc na ci ak naafeq itam mooy woote woo lu nekkul ci moom borom bi tabaraka wa ci dalilu sidq mi ngi wax ci suratul ankabut ne waaw nit ñi ndax dañoo defe ne dañuy jóg rekk ne gëm nañu yàlla ma bàyyi leen loolu ma bàyyi leen noonu te nattuwuma leen ba feeñal ñi wax dëgg ak ñi waxul dëgg daa dina ña leen jiitu woon kat dama leen a nattu woon ba feeñal ña wax dëgg ak ña waxul dëgg moo tax al imaam al baxawi ci tafsiram bi muy tafsir aaya jooju daf ne nattu boobu mën naa tege ci sa alal léeg-léeg nit ki day nekk ci jëreen diine wala mu nekk ci ay caaxaan ba mu yàgg mu dugg si ci diine lislaam wala mu dugg si ci dëgg jékki-jékki gis alalam di dem bu dee ko amul xel amul fiq ak dégg ci diine xam doxalinu sunu borom tabaraka wa mën naa jàpp ne lam nekkoon alalam bari mu dugg si ci lii alalam tàmbali néew xëy na la mu nekkoon kon dafa gën su ko defee day daal di am fitna ci diineem kon nattu boobu mën naa ñëw ci alal mën naa ñëw itam ci ay bakkan mën na cee dugg si lor dal ko moo xam ci njabootam ay soxnaam wala ay doomam wala feebar dal ci kawam boo xam ne dalu ko bi mu dugg seegul ci dëgg su yàkkamtee te xamul borom bi tabaraka wa ak doxalinam day yaakaar ne lam nekkoon ba ko dara gënul dalul moo gën ci moom li mu nekk bi ko dara dalee su ko defee kooku fitna lay daal di doon ci diineem mu ne borom bi nee waxu kay danaa leen nattu ba feeñal ki sellal nga xam ne li mu wax wóor na ne mi ngi ci moom ak ki nga xam ne munaafiq la kii wax dëgg ak kii wax la ca gannaaw dëgg nee na dana leen nattu itam ci ndigal yi ak tere yi bi nga ne laa ilaha illallah du baat rek boo xam ne dañ koy wax mu doon ak léemaay mu jeex waaye dafa am lu muy def ci yow dafa am ak soppiku goo xam ne daf ko war a soppi sa jikko soppi sa jëfin soppi sax sa programme ndax ki doon caaxaan nga xam ne boolewul woon ci programme am julli boolewu ko ci woon jaamu yàlla toujours ma nga ci caaxaanam ma nga ca liggéeyam ma nga ca yeneen waaye bàyyiwut julli xel bàyyiwul jaamu yàlla yi xel ba mu yàgg nag mu delsi ci laa ilaha illallah kon nattoo ngi tege ci kawam ba xam dana sob programme am déet ba xam dana fexe ba waxtoom wi mu dugal ci juróomi julleem déet ba xam dana fexe ba weeram yi mu dugal ci weeru kooram déet ba xam dana fexe ba dundam gi mu dugal ci programme fas yéene aji néegu yàlla bem déet su ko defee soppiku programme googu ab nattu la ci ndigal yi tere yi itam nag nekk noonu da doon caaxaan ne ci ay biddaa nekk ci po guddi ak bëccëg di tux wala muy naan sàngara wala muy dox tànki caaxaan ba mu yàgg nag mu ne laa ilaha illa allah kon nattu baa ngi ñëw ba xam laa ilaha illa allah dana la tax bàyyi caaxaan yi nga nekkoon ñëw ci njub gi walla déet su fekkee laa ilaha illa allah jeexital na ci yow jeexital wu tol ne bàyyiloo na la biddaa ñëw ci sunna bàyyiloo na la caaxaan ñëw ci dëgg bàyyiloo na la mooy yàlla ya nga doon def moo xam façon bu mën a doon dikk ci njub su boobaa yow dëggu nga ci sa laa ilaha illa moo tax mu ne kon daf lay nattu ci ndigal yi ak ci tere yi loolu nag bi mu wàccee muy laaye jooju borom bi tabaraka wa ne da ngeen a yaakaar ne da ngeen naan rek gëm naa yàlla bàyyi leen loolu te du leen nattu indi woon na tiitaange ju rëy ci saxaaba yi waaye borom bi tabaraka wa taala dalal seen xel ne la wala qad fatanna alladina min qablihim te kat du yéen laa ko jëkk a def waaye ña fa jaaroo nit muy nit yi yonent yi jiitu woon nit yi sunu yonent borom bi tabaraka wa taala nee na dama leen a nattu woon ba feeñal ña dëggu ak ña dëgguwul kon nag nattu bi yéen jagoowu leen ko kon sooy ba ngeen góorgóorlu rek ba kenn bañ leen a raw wala bañ leen a gañ borom bi tabaraka wa taala nag bu ne fa la yaalamanna allahu alladina sadaqu yàlla dana leen nattu ba xàmmee ñi wax dëgg xàmmee ñi waxul dëgg loolu firiwul ne borom bi tabaraka wa taala dafa leen a xamut oo kay borom bi lay daw ca sa xol lay daw ca sa xol te waxagoo ko mu nekk ci sam xel loola xam na ko kon bu dee moom mbirum boppam xàmmee na ku dëggu ak ku dëgguwul wax lu am ak wax lu amut borom bi tabaraka wa taala xam na ko waaye natt bi lu ko waral mooy feeñal feeñal ko ba jullit yi xam ne ah waa ji képp nekk ci seen biir lim doon wax amut ndax lim waxoon dëppoowut ak lim jëf su ko defee ñu xam ne wax ji waxi kese rek la loolu mooy natt bi bokk na ci lii amal leeral ak dëggu nim tëlee ñàkke ci laa ilaha illallah bokk ci ay dalilam yi gën a dëgër mooy xadis bi nekk ci buxaari ak muslim yi jële ko ci muaas ibnu jabal radiallahu taala anhu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne amul kenn amul kenn kuy seede ne laa ilaha illallah amul benn buur bu yeyoo dara ci jaamu ku dul yàlla ne muhammad abduhu wa rasuluhu seede ne muhammad ndawam la yonentam la mu ne nag saadiqan min qalbihi te fekk ma ngay dëggu ci xolam amul kenn kuy seede ñaari seede yooyu fekk mu doon ku dëggu ci xolam nee na lu dul borom bi tabaraka wa taala araamal ci sawara muy laal yaramam illa xaramahu llahu ala annaar borom bi tabaraka wa taala dafay araamal ci sawara mu laal yaramu kooku nga xam ne seede boobu dëggu na ci moom kon loolu lu am solo dëggu nag dafa doon maqaama bu kawe boo xam ne dafa laaj nit ki sonne yar boppam ci dëggu fexe ba li muy wax mu sàmm ko ba xam ne lii lu dëgg la mu door koo wax fexe ba li muy woote woo mu fexe ba meloo ko mu doon melokaan ci moom mu door ko woote woo lu ci amul rek ñàkk dëggu dafay daal am kon maqaama bu kawe la moo tax borom bi tabaraka wa taala waxi boppam sax bi mu koy tagg daf ne wax ju dëggu la wa man asdaqu min allahi xadiisa waxaat ne wa man asdaqu min allahi qiila nee na yàlla kan moo mën a dëgguwul say wax di dëggu ba mel ne waxi yàlla kenn gënu koo dëggu ay wax kon kenn melut ne moom ci ak dëggu ndax lu mu wax rek dafa mel ne xar-xarub doj ci am solo dëggu ba tey melal na moom borom bi tabaraka wa alxuraan tudde na ko sidq maanaam dëgg mu ne kenn gënta yées jaamu yàlla boo xam ne dafa weddi yàlla ba noppi weddi as sidq sidq mooy lan mooy dëgg dëgg boobu ci aay jooju nekk ci suratu zumar boroom xam-xami tafsir yi dëppoo nañ ci ne liñ ci jublu mooy alquran al karim kon tudde na alxuraan foofu ak dëgg ndax alquran lépp dëgg la caaxaan newu ci yonentam yi tedd yu sell yi melal na leen ci ne ñu dëggu lañ moo tax mu ne ñooñu tibbal naa leen ci sama yërmande ñu may leen may naa leen itam làmmiñ yu dëggu kon ay xéewal la yoo xam ne borom bi tabaraka moo ko doon lim di wax ne defal na ko yonent yi may na leen yërmandeem waaye nee na defal naa leen itam làmmiñ yu dëggu kon kooku melokaanu yonent yi la ñi gën a spécial ci jullit yi itam nga xam ne mooy ñi góorgóorlu bu wóor a wóor borom bi tabaraka melal na leen ci dëggu mu ne am na ci ñi ma gëm ay góor min al muminina rijalun ay góor yoo xam ne dëggu nañ ca lañ diggee woon ak seen borom accord biñ signé ak seen borom dëggu nañ ca bi nga ñëwee ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah dangaa ngaa benn accord bu dox sa diggante ak sa borom mu ne nag am na ci góor ñoo xam ne ñu dëggu lañ ñoo xam ne niñ ko signé woon noonu lañ ko doxale bu dee nag minal muminin a am na ci ñoom ñu mel noonu dalay wan ne am na ci ñoom itam nag ñu melul noonu ñoo xam ne lañ signé doxali wuñ ko nañ ko waxe xëy na laa ilaha illallah ja wala ashadu laa ilaha illallah ja ci seenu làmmiñ la yem waaye àggut ci seeni cër wala yaasu billah ñi nga xam ne it ñooy ñi dëggu borom bi tabaraka wa taala nee na ñooy ñi ko ragal kon ñaar yooyu ñu ànd lañ as sidqu ak taqwa ñoo taqaloo nee na ñi ko gëm mooy ñi ko ragal ñi ko dëggu ñi dëggu ñooy ñi ragal yàlla moo tax mu ne euh, ñi nga xam ne dañuy muñ bu tiis tegee ci seen kaw ak lor nee na ñooñe ñooy ñi dëggu nee na ñooñe ñooy ñi ragal yàlla ñaar yooyu la boole ulaika alladina sadaqu wa ulaika humul muttaqun ñii ñoo dëggu ñii ñoo ragal yàlla payug dëggu nag pay gu rëy la ndax mooy payug wéral sa laa ilaha illallah lañ lay fay ëllëg moom lenn rek la mooy lala taxoon di kër kër yi muy àjjana moo tax borom bi tabaraka wa taala ne yowmal qiyaam day wax ne lii mooy bis bi nga xam ne nag ña dëggu woon tey la leen seenu dëggu di jariñ mooy lan mu ne jannaatun tajri min taxtiha al anhaar àjjana yoo xam ne dex yaa ngay daw ca suuf xaalidiina fiha abada ñu sax fa ba faww duñ fa jóge kon fay gaa ngoog radiallahu anhum ñooñu nee yàlla gërëm loonu leen waradu anhu ñoom gërëm nañ seen boroom boroom bi tabaraka wa taala teg ci mu ne dalika alfawzu alazim loola mooy texe gu màgg yàlla na yàlla may texe gu màgg googu boroom bi nee bi muy lim ci suuratu euh, taxrim jullit yu góor yéeg yu jigéen yéeg gëm yàlla kat ñu gëm yàlla ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi jaamukat yàlla yu góor yi ak yu jigéen ñi daf caa teg ni ñu dëggu ñu góor ñi ak ñu dëggu ñu jigéen ñi di lim di lim ba ca mujj ga mu ne ñooñu yàlla waajal na leen njéggal waajal na leen it ab yool bu màgg kon yool bu màgg boobu mu wax ajran aziman boobu mooy alfawzul azim bi mu tudd ca aaya ba ca des mooy jannatun tajri min taxtiha al anhaaru xaalidina fiha abada kon loolu mooy pay ñi dëggu itam seenu baax tax na borom bi tabaraka wa taala dégle na ne kuy wut àndandoo wutal ku dëggu wutal ku dëggu yaa ayuha alladina amanu dafa wax moom borom bi tabaraka wa taala yaa ayuha alladina amanu leen yàlla te ànd ak leen ak ñoom def leen ñuy seeni àndandoo roy leen leen ngeen mel ne ñoom seeni melokaan nag ñoom ñi dëggu borom bi tabaraka wa ko gàttal ci benn aaya ci suratul xujuraat mu ne innama almuminuuna alladina amanu billahi wa rasuli ñi gëm yàlla mooy ñi gëm yàlla gëmub yonentam kon ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah na foofu summa lam amuñu benn sikki sàkka xam nga ne bokkoon na ci sart yi weesu mooy yaqiin bañ am sikki sàkka wa jaahadu bi amwaalihim wa anfusihim ñu def effort muy jihaad ci seeni alal ak ci seeni bakkan fi sabilillahi te yàlla kese tax mu ne ulaayika humu saadiquun ñooñu ñooy ñi dëggu ñooy ñi dëggu kon solo mooy seen melokaan buñ nee dëggu nag buñ nee dëggu mooy nit ki la muy wax na jóge ci xol bi na fekk jubluwuta njuub njaaj jubluwuta wax lu amut waaye li muy wax mooy li mu gëm xol ba ak làmmiñ wa ñoo bokk di ko wax dangaa ngaa dégg rek waxi làmmiñ wa yow waaye xol ba it ma ngay wax moo tax borom bi tabaraka wa taala bi muy ŋàññi naafiq yi ci suuratul munaafiquun daf ne naafiq yi de bu ñëwee dañ naan nun de gëm nan ne yaay yonentub yàlla buñ dikkee loolu la ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ko yàlla xam na ne yaay ab yonentam waaye yàlla xam na ne naafiq yi waxuñu dëgg naafiq yi waxuñu dëgg mu ne li wax ci seenu làmmiñ di dëgg la muy innaka la rasulullah yow yaay yonentu bi yàlla loolu dëgg la waaye yàlla nee na waxuñu dëgg lim jublu ci waxuñu dëgg mooy li génn ci seenu làmmiñ bokkul ak la ne ca seen xol kon wax ji dëgg tekkiwul ne baat bi nga tudd ci kaw ñi koy dégg dëgg la rek taxul nga wax dëgg waaye bu kàddu gi nekkee dëgg te jógewut ca xol ba it du dëgg moo tax mu ne ko yàlla xam na ne yaa dib yonentam wallahu yaalamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna almunafiqina la kaadibuun noonu la ko waxewaat ci beneen laaya mu ne ko bul am naqar ci ñii nga xam ne gëmuñu yàlla mooy ñii wax ci seeni làmmiñ ne gëm nañ te fekk ngëm googu àggut ci seeni xol kon làmmiñ wi ak xol bi ngir nit ki doon ku dëggu faaw li ñuy wax ñoo koy bokk wax ñoom ñaar dëggu nag bu fekkee ne nit ki bëgg na koo xam dëgg dëgg dëgg faaw mu xam safaan bi muy ñàkk dëggu bu dee ci wàllu wax moom la ñuy tudde fen bu fekkee ne ci wàllu jikkoo ak melokaanoon la moom la ñuy tudde naafiq moo tax borom bi tabaraka wa taala nee na am na ci nit ñi ñoo xam ne dañ naan gëm nañ yàlla gëm nañ àllaaxira waaye nee na ñooñu gëmuñu kon wax nañ ko ci seeni làmmiñ waaye àggut ci seeni xol nee na ñooñu dañuy jéem a ndax yàlla dañuy jéem a ndax yàlla di jéem a ndax ñi gëm yàlla nee na waaye seen bopp rek lañuy nax ñooñu seeni xol dañoo wopp seeni xol dafa wopp seen ndëng googu moo tax borom bi tabaraka wa taala leen feebar ba tax li leen dal dal leen kon loolu lu mat a bàyyi xel la loolu nettaliwaat na ko moom borom bi tabaraka wa taala ci suratu nisa mu ne naafiq yi dañuy jéem a nax yàlla waaye nee na yàlla ndax na leen bu yàgg seeni melokaan ne bokk na suñ jógee jëm ci julli nga gis ñu tàyyeel lool te suñu julli ngistal mooy tax ñu julli maanaam nit ñu gis leen ne ay jullikat lañ mooy tax ñu julli kon jaamu yàlla gi ñuy def moo xam ci wàllu rafetal jëmee ci nit ñi la muy maye alal wala joxe ko ngir nit ñi ne tabe nañ moo tax ngir nit ñi ne ay jullikat lañ moo tax ñuy julli ngir nit ñi ne ay jàngkati alxuraan lañ moo tax ñuy jàng alxuraan ngir nit ñi tagg leen daal moo leen tax di jëf kon ñooñu ci musiba lañ nekk yàlla na yàlla mosul si noonu nee na seen melokaan bokk na ci dañuy deng deng muzabzabina bayna dalika la ila haula wala ila haula melokaanu naafiq la ku melul nenn yorul mën rek yorul méthode boo xam ne ci lay dox waaye ñoom jëkk fi ñoom rek ne la maa ngi a ànd li ko ñor mooy intérêt àddunaam nu mu ciy jote xam na ne su juyoo kii mën na loolu mën na koo xaj nangam su juyoo kee loola mën na koo xaj nàngam su juyoo mën na koo xaj nangam mu ñëw ne ñépp maa ngi yéen a ànd ñu ci wéetal rek wax ci ña des lu ñaaw wax ci yow mi teew lu rafet kon kooku mooy musaddaq yàlla na yàlla musal ci boobu melokaan jullit bi di yor melokaanu jullit doon lam doon loolu nag dàppoon ci wut ak maslaa ak nit ñi ak waxtaan ak ñoom ak rafetal jëme ci ñoom kon daal mbokki jullit yi kenn ku ne ci nun war naa dellusiwaat ci boppam laaya biir boppam jiima natt boppam itam ba xam ak dëggoom fan la toll jaadu na nu xool nun fan lan toll ci sun ngëm gi nu déclaré ne ay jullit lan wax ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah loolu ndax mi ngi feeñ ci sunuy jaamu yàlla ndax mi ngi feeñ ci suñuy jëflante ak doomu aadama yi sun ngëm goo gi ndax mi ngi feeñ ci sun responsabilité yi nga xam ne ñi ngi nu koy jox moo xam responsabilité yu mag la wala yu ndaw ndax kenn ku ci ne ci nun yaa ngi xool responsabilité bi ñu lay yan moo xam bu tuuti la wala bu rëy la xaar nga ne ëllëg ci sa kanam borom dana la laaj lii ñu la yanoon loo ca def defe naa ne teewlu bu mel noonu su fekkoon ne yëg-yëg boobu la nit ñi yor ah, la daloon Omar ibn Abdul Aziz radiallahu moo lay dal bis ba nga xamee ni dañoo dénkaane ne moom lañ def mu nekk xalifa jullit yi ci kaw suuf te yëgagu ko biñ ko ko yëgalee dafa xëm di jooy jooy yu metti ndax xam ne responsabilité biñ ko yan diis na ba mu jógee ca loolu ak dundam lépp dafa soppiku lim yoroon ci alal lépp mu génne ko li ay soxnaam yoroon ba ci or boo xam ne ñoo ko moomoon sax donne ko ci seeni baay mu ne leen comme que sa baay dafa doonoon ab xalifa amaana alali julli di la génneel or bi ñi génne ko mu def ko ci baytul maal kon ku mel noonu di ko jox ndomb ak tànk mu jàpp ne lii ak pal la di wax ne maa ngi sant ki ma ko jox di sant sama ñaari waajur ndax xéewal gu toll nii lii rek ko man ngërëmul ñaari waajur rek moo ko mën a joxe kon responsabilité bi dox sa diggante yow mañ jox pal googa moo xam gu tuuti la wala gu rëy la war ngaa xalaat ne fa sa kanam boroom dañ laa yen yen bu diis boo xam ne faaw mu laaj la ko kon loolu ku ko bàyyi xel da jub da nga jubal la ngay dox itam dana dox la ngay doxal dana dox ndax noo ngi nattu suñ bopp ci sunu ngëm googu nu déclaré sunu diggante ak jaamu yàlla yi julli ndax suñu jóg di fa jëm noo ngi yëg ak cawarte jaamu yàlla yi ñuy defloo suñ koy def ndax noo ngi yëg ne dafa am luñ def defloo loo xam ne lu baax ci nun la wala ndax boo jógee rek da ngay yëg ne dafa am yan bu diis buñ la yan boo xam ne war nga làqat ci noo mën a def ba teggi ko ba teg ko ci suuf yàpp naa ne ku xam mbir mënam demee danga nga yëg ne dañu laa dugal ci xéewal bañ ne laa xayya ala al falaax kaay leen ci taxe gi soo amee yëg-yëg boobu boo jógee jëm ci julli tayal du la jàpp moo tax melokaan yi naafeq yi mu bokk ci mu ne buñ jëmee buñ jógee jëm ci julli dañuy tayal ndax seen laa ilaha illallah ja dëgguwut loolu moo tax jaamu yàlla yi ki dëggu bu cay jëm day ànd ak cawarte day ànd ak mbégte day ànd akub wayar waaye du ànd akub tayaani fan lan toll ci sun laa ilaha illallah jooju nu déclaré ci sun diggante ak sax ci melokaan bi nga xam ne moom la lislaam bëgg ci nun moom la du yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal muy melokaanu jaar ci sunna nag te bañ a deng dengi bañ a jëm wetu ndeyjoor bañ a jëm wetu càmmoñ waaye jub siraatul mustaqim muy ci wàllu pas-pas yi muy ci wàllu jaamu yàlla yi muy ci wàllu jikko yi ak jëflante gi ak doomu aadama yi bañ a yor tey aw melokaan bu ngoonee nga yor meneen wu bokkut ak ba nga yoroon ba ëllëgee nga yoraat meneen wu bokkut ak bi nga yoroon démb fan lan toll ci melokaan woowu ak sunu laa ilaha illallah fu mu ca toll mbokkum jigéen mi nga xam ne jullit la laa ilaha illallah jim déclaré fan la ko toll ci digganteem ak am colam mi ko lislaam sant ci digganteem ak ak génn jóg di doxi farata ak doxi lu dul farata ci digganteem ak toog ci këram ak ñàkk toog ci këram fan la ko laa illa illallah jooju toll kon mbokki jullit yi suñ taxawoon di laaj laa ilaha illallah jooju fan la doon tolloo diggante nangam ak nangam ak nangam di ko détaillé loolu dana doy sëkk ak xutba noo ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu may nu tawfiq defal nu ak jàppandal ba li nga xam ne jaadu na ci nun mu bëgg ko ci noonu mu doon melokaan wi nga xam ne moom lanu laa ilaha illallah sant ngir mu mën a baax mën noo jariñ melokaan yooyu mu xiir nu ci te jàpp ndalal nu ko musal nu ci lépp loo xam ne lu koy gàllankoor la allahuma aqsim lana min xashyatika ma taxulu bihi baynana wa bayna maasik wa min taatika ma tuballiguna bihi jannatak wa min alyaqini ma tuhawinu bihi alayna masaib addunya اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا